jóg mais je vais répondre parce que man nak lepp lu may def dama koy assumer man duma lakatu ci ginaaw ken man je suis avec Amadou Ba je suis avec les camarades yo xam tay tey nañ ne tay dañoo wara and ànd suñu ànd ak peut-être dafa wara dak lolou man lolou la gem légui na Amadou Ba day génn affaire ak du génn affaire c'est pas à moi de le dire mais man japp naa ne bu nekkoon man la lu mu daj affaire pendant dix ans wala pendant huit ans bu nekkon man la damay génn appel damay damay ànd ak moom effectivement te damay nekk le premier militant ànd ak moom xoolal man nga moom alors Abdou ñu ngi lay euh, depuis boobu ak léegi euh, gis nañ la ci pegg Bah Diakhaté lu mën di am yaa ngi génn di wax tey mu war a taxaw euh, sa première impression bëgg a duggee ci biir ak itam naka nga gisee waaw j'espère que dama ne woon jërul woon muy taxaw sax kon tey foog naa ni bu taxawee day wàcce leen micro yi tuuti xam ne bëggu jërul woon muy taxaw parce que daa am loo xam ne mhm. man jàpp naa ne fële la waroon a yem euh, dig dig la waroon a yem mhm. dossier bi dossier bi digg la waroon a yem mhm. ndax dossier boo xam ne dañoo jël ay video yi yàgg bëgg ñu cee nax jël ko ne Bah jaxate lii la wax Ousmane Sonko premier ministre te vidéo yooyu date yi mu ngi nekk en deux mille en deux mille vingt deux en deux mille vingt deux la vidéo yi nekk ñu ñëw bëggoon ñu ci nax far ñu démontrer ne leen lii ay nax la ndax lii lu yàgg la ndaxte la ray nit ña ca biis ba la nga xam ne si moo moo génnee ñoom ñi ñu jàppoon dugal leen ci kaso bi loolu moo yóbbaale vidéo yi bu dee nag dañoo voté une loi d'amnistie boo xam ne yow en tant que président boo ñëwee da nga ciy seppi yi la arrangé yi nga xam ne si yow loolu la arrangé nga ñëw di ko toppi nit ñu xamné ne jallul ñu ne voilà dafa diviser fausse nouvelle ñu ne dafa diviser fausse nouvelle légui nak nouvelle yoyu mu diviser te mu fausse ñom dañoo amone obligation léral ñu yan nouvelle la wala nouvelle yi amul tour xam nga so né nouvelle yi mu diviser faux la da ngay démontrer né li faux la waye division de fausse nouvelle yakarna naa journaliste yi yëpp kenn mënu la génneel né la faux bi li moy faux bi limu wax ci kër giñ biñ né jomaay da ko jaay Cheikh Diba mais budul deug na jomaay yoni euh mu tuddati sax na yónni agence judiciaire de l'état mu ñëw taxawal ko fii indi kayit yi wane ne baa da koo sosal bu dee Ousmane Sonko daam lu mu ko waxal te du dëgg na yónnee avocat mu ñëw fii wane ne dafa sosal Ousmane waaye toog ci say bureau climatisé pataas bu tàng procureur pour nga yaakaar ne moom procureur day jël pataas boobu di la ko lekkal du ko def moo tax mu indi ko franc grand délit parce am na loo xam ne su ay nit jugee kalaame ba mu neex leen ñu ne leen léegi procureur sax moo auto na dañ ko sànni pataas bi moo tax procureur ne bu ñu demee flagrant délit ñun atte ko mu jeex parce que du du ngeen ma saraxe bu dañ ko bëgg a saraxe bëgg ko jaxaseeg askan bi parce que am na loo xam ne bu dee Bah Diakhaté daf ko wax te vidéo bi ñu jegg Bah Diakhaté ay fee la ci nettali fee yi mu nettali nag bu dee du dëgg na ñëw contesté ko à la baar waaye duñ toog ci seen climatiseur yooyu uuf seen i jongoma ñëw taxaw fii di di di di bëgg a saraxe jàmbur bi loolu du fi am na ñu ko atte Bah Diakhaté ñibbi këram ci nu mu gën a gaawee te dama leen wax baa ci biir duñ am jàmm ndax semaine bii xam na liñ daj semaine bi xam na liñ daj ta baa ci biir kii bi mooy Ousmane Sonko tànkam dootu ko teg Europe yéen yéen journaliste yi gëstu xam nañ li ma koy wax Ousmane Sonko bu tëjee Bah Diakhaté dootul dem Europe wala bu fa demee li dal Kabiru Mbodj moo koy dal yéen ñi xam Kabiru mooj na xam ngeen li ko dal junj doy na borom xel ku ne xam na ne euh, organisation féministe yi nekk Europe bokkut yi nekk Sénégal yii di dëngal musoor nga xam ne ay door dóorkat lañ organisation féministe yi nekk Sénégal dañuy dunde jigéen ñi di taxawaalu di wut lu ñu am mais féministes yi ko Europe ñoom dañuy xeexal jigéen bañ na ko laal fa muus mu jigéen sax mhm. laal fa góor a ko gën a gën ay daan kon na ngeen xam ne bul defee fii ba jaxate motion de censure mi ngi koy xaar assemblée bi ci topp Europe mom tankam dootu ko fa tegg wala bu ko fa tegee aéroport bu mu wacc nañ ko dañ ko japp dugal ko ci kasso bi ndax dañoy xex ak ak yelleefu jigen ta di len annoncer nak le premier juin le premier juin góor jigen yi ñoo aye ta wa Pastef nee na dañ ci wote manifestation bay len ko xel ñew ñew allo kilifa non non kii baal bàyyi kii moo xara xara xana natanaa mu set kay kay kay kaay nii ñëwal ni ñewal ni ñewal ni gars yi baax na baax voilà alors lan mo xew li fi xew daal mooy ñëw ñun ci as audience Bah fi Imam Ndao un inconnu jógee fële ñëw ba ci buntu bi naan dañoo war a nangamtaan seen day ci kaso bi ñu dóor ko lii moom moo fi am leneen amu fi réew mi nag ma Samba ak ma Paate ci biir tribunal bi soo comprendre nga erreur sax ñun def nañ ko te il faut il faut le reconnaître tribunal kendo du fa xeex soo comprendre nga mais am na loo xam ne xaru la ak yabaate ak jàpp ni da ngaa wéeru fu gis nga dara jëy Cheikhul Khadim kenn muy fi xoxatal kenn gisa Bah Diakhaté mii ñuy ate nit wax na fi lu gën a pire loolu te kenn defu ko dara ils ont échoué nag xaaruñu leen ci ay audience yu ñàkk fayda yi xam lu ñu leen xaar mooy dund ñu wàññi ko ñoom ñoo ko diggee woon ay fen yiñ fi jëmbat ñu fexe mu deñ loolu moom mooy dëgg du ay affaire de audience Bah Diakhaté nangam Bah li liñ ko fi indee woon lépp wane na ko

so comprendre nga cas bi kay wax naa la ni mu demee réewande moo fi dul jaay te ñun ñaa la xamal ñaar ñun du ñu ne yàllaa ngi lay nuyu nit te gisuñu ko ku ñu puub ñu day la loolu moom mooy dëgg maa ngi jégalu ci terme bi so comprendre nga ay xale lañ ay xale lañu ñun nag tey ak ëllëg ak ginnaaw suba baa jaxate li mu wax rek gis nga suba buñ ko bàyyee kenn mënu koo noppiloo te yàlla bu ma am bu ko téye woon nit suba ñu gis téeméeri baa jaxate ak juróom-ñaar maa ngi jégaluwaat bu wér wa salaam. voilà ngeen ngeen kaddu yi nga xam ne nag moom la jot a euh, rusoon li nga xam ne nag moom moo jëm ci coow bi nga xam ne amoon na fi nga xam ne nag moom mooy ci biir euh, tribunal ndax euh, nee na am na kenn ki nga xam ne nag ci militant Pastef la. kenn ci militant Pastef moo ñëw jàkkaarloo ak ñoom wax ay kaddu yi nga xam ne nag delloo nañ ko ci ay kurfeñ maanaam bu ñu leen tegee loxo ay diir bàyyi nañ leen fu mu toll nii donc euh, mën nañ japp ni euh, ginaaw bu ñu leen annoncé woon ni amoon na fi xex euh, am ci ñi nga xam ne nañ leen mën nañ leen confirmer ni bàyyi nañ leen. alors kilifa gi loy wax ci mbir mi. asalaamaaleykum mbokk yi. maaleykum salam damay laaj te Sénégal dafa nek pays de droit la wala lan la ñew ba tribunal fi mbaxana doone ben ñepp yami fi nga fekk fi ay nit ñu am seen problème di ko lijjanti nga ñu dagaleen aw sagandey tega ko fenn parce que fi nga ko teg mooy da nga far au pouvoir. loolu xam nañ est ce que loolu mooy liggéey woote jub xam lan jubanti avant nga jubanti da nga jub Ousmane Sonko juboo mënoo jub mënoo jubanti dara Ousmane Sonko amul benn premier ministre Macky Sall bu mu saagawut bu mu xasut wax la loo xamante ne wax ju bon la kon moom bu toggee à leur place moom war na consommer Sénégal dafa baaxoo kilifa boo xamante ne day muñ mel na président Macky Sall bu nekkee njiit te muñ say fee dëmb nekk fii ne wang ñun xam nañ ko ñu ngi jógee ba Fatick fa lañ xëyee ñew dakaru soutenir ba Diakhaté ak Imam ndaw ñun nak dañoo nekk ay opposants fier d'être fiers de l'être ñu créé benn groupe WhatsApp tudé ko opposition engagée euh monsieur Ka sama ginaaw mom la président Tom mi doon wax légui ni mom la porte parole euh Joli Cœur nek euh la trésorière man mi maa nekk le secrétaire